Euh, dama fekkee négociation yi fi amone biñuy def euh, système de rémunération bi li wax moy euh, mesure yoy ñu jëlone pour yenn secteur yi ñoom dañ kan nañ ci dara bénéficier wu. bobu ñi ngi def réunion bi ak wa santé bi waxé lolu ñu xol né mairie collectivité yi de façon générale gestion personnelle bi dafa xaw a légui ñu né fokk ñu xol ñan ñoo nar bénéficier mesure bobu parce que catégorie personnelle yi nek ci mairie yi dañoo légui léegi défé lolu ñu teg en place ben commission ñom ñi bokk ci commission bi té wax dëgg ki leen représenter ci biir commission bi néna na liggéey bi def nañ ko ni mu gëna rafété mais buñu xolé personnel bi ñom xayma nañu à peu près 4000 et quelques travailleurs yo xamné seen dossier yi leer nañ xam ngeen 4000 et quelques ci Sénégal yépp dafa touti légui ñooñu gouvernement bi xamna day xalaat ci sama xalaat bu gàtt ñooñu bu ñu leen profitool ci mesure yi ñeneen ñi nag beneen problème mooy am loo tax xam naa xëy na nañoo bëgg liggéey bi pare mais nag ñoom tamit mënuñu xaar donc loolu foog ñu toog ñu waxtaan si comme le ministre des finances la concerné ministre collectivité recevoir na leen man li ma bëgg mooy waxtaan ak ministre bi dinaa ko gis incha allah suba waxtaan ak moom laaj ko fan la problème bi nekk bu ma ko waxee ma woowaat leen mais ñaan laa leen dama leen ñaan parce que dama gis ne. Euh, population yi sonn nañ pièce état civil pour nga am ko métti na loolu laaj dañ le danañ la laaj extrait de naissance waxatuma euh, inhumation yi moo xam mu nekk lu metti donc Sénégal nit ñi dañuy yeewu bés bu ne ak ay difficultés pour obtenir des pièces au niveau des mairies des collectivités territoriales loo tax ma ñaan leen ne leen ji ngi dem ci gàmm ñëpp gis nañ ne Sénégal événement religieux muy màggal muy gàmm muy yeneen feeti yépp nit ñi dañ ci dañ ci dem ba jeex ma ñaan leen ñaan leen si si école bi école bi <laughs> éducation c'est une c'est transféré c'est une éducation c'est donc fu mu nekk compétence transférée donc fu mu nekk ni biñ ma leen waxee xam nga syndicat nag da leen neen dem xool sama base ah présidente nag mënuñu la bañal dara waaye nag foog ñu dem waxtaan ak nit ñi ndax fi mu ne nit ñi dañoo sës bu ñu demee wax leen lii naka lañ koy jëlee effectivement ñoom mandat la ñu am ma ma xam ko aussi ma ñëw ma waxtaan ak ñoom ñoom tamit dem nañu xool seen base seet ndax lu mën a nekk la donc amaguma seen retour mais yaakaar naa ni dinañ ma tontu parce que école lee mu ubbi.